ba ñëpp jàppoon ni nguuru Macky Sall sax dina rot te bu ñu wéyaloon defe naa nguur gi rot na coow li yëngaloon réew mi ba fukki bakkan ak ñeent rot ci lu mat juróom benn fukk juróom benn téeméer ci ay nit gaañu ci ñii seen bët ñii seen loxo ñi seen tànk ñu ne lu mel nii musuñu gis mu am senegal wala mu toll noonu yàlla def ci ndox mu sedd jaarale ko ci ay intervention yu amul fii senegal yépp jàppoon ni nag bu ñu génnee ci loolu kii nga xam ne moom moom la ñu dénk réew muy Macky Sall dina bàyyi tappale yi ak caaxaan yi bàyyi justice àttekat yi muy utiliser pour xeex ay adversaire politique bàyyi alkaat yi muy dooleel ne leen dal leen ci kaw citoyen te xam ni liñ ko fi tegee mooy defar réew mi jubale sénégalais yi wàññi seen coono dem ci anam gu rafet ñépp loolu lañu ñu gëmoon waaye ñu gis ni ndekete moom bi mu génnee ci loolu gàccee la ko def ci boppam gàccee la def ni dafa amoon defet ne nag xaaral ma dem fagaru defaraat sam bopp moo tax ku dem seeti ko rek dégg naa booy dem dafa ne est-ce que xam nga ne li fi amoon dootu fi am dem ne ma ngay dem uti doole pour ñëw delloo si waat mbir mi fañ ko tegoon moo tax ku yeewoo Sénégal rek war ngaa am lu la bett fi toll nii parce que ñëpp jàppoon nañu bu ñu génnee ci mars 2021 Macky Sall dina seet li des ci nguuram mu xool nu mu koy rafetalee ba dem ci anam yu gën a rafet bàyyi fi réew mi ni ko fi fekkee woon te bañ fee yee fitna goo xam ne dina juraat ay bakkan ak leneen ak leneen rax ci dolli kenn xalaatul woon ni dina toogaat ba ñuy wax fii senegal coowal ñetteelu mandat surtout nag mu jógee ci Macky Sall nga xam ne moom bokk na ci ñi gënoon taxaw fii di xeex Ablaye Wade warul am ñetteelu mandat kon tey senegal kuy wax ngir yàlla kese am nga lu la jaaxal am nga lu la naqari am nga lu la bett ak lu la rusuloo te mu ngi jógee ci Macky Sall ak ay ñoñam coow loolu mooy ñaareel ci gannaaw ab nit jóg na jiiñ ma man mii ne dama ko siif xam naa ni amul kuy dund Sénégal te xam Ousmane Sonko waxuma la xamantu ndax nit dina toog fële di bind te xamul ki muy bind kan la dina toog fële di di wax te xamul lu muy wax parce que sénégalais moo mel noonu am nañu fit te ku ñu jox micro nga wax waaye amul kenn koo xam ne xam na ma as tuut boo xam ne di nga dégg ñu ne Ousmane Sonko sif na nit nga xalaat sax ni mun naa ne. ndax ku xam sama jaar-jaar démb ba tey xam li ma gëm ak li may dund xam nga ni loolu mënul ne waaye bi loolu amee man maa njëkk a génn wax ak sénégalais yi ne leen lii ab complot la ab pexe bu ñu nas la te ñi ko nas ki ñuy wax Mamour Diallo bokk na ci ki ñuy wax gabisoo bokk na ci ki ñuy wax Serigne Bassirou Gueye procureur de la République bokk na ci am daal ñu ma lim ba lim ci Macky Sall ndax turam dañ ko cee tudd ne nag sénégalais yi gannaaw yàlla man yéen laa bàyyil sama bopp gannaaw yàlla parce man yàlla rek laa gëm moom rek laa wéeru nit laa jaam laa matadi naa comme kenn ku nekk ci ñun waaye yàlla rek laa gëm boolewuma kook lenn dendalewu ma kook lenn lu am rek mooma lu am rek damay dellu ne ko sant naa la neex na naqari na ma ne Sénégal yi gannaaw yàlla yéen ñi nga xam ne yéen a ma tax a sonn yéen ñi nga xam ne yéen a ma tax a xeex yéen ñi nga xam ne yéen a tax ma bàyyi sama lépp ñàkk sama lépp ngir Sénégal baax ba faw yéen mbir mi seen mbir la bu ngeen nangoo li Macky Sall bëgg ma xam ne loolu la yàlla dogal ma muñee ko sama borom waaye askan bu ñu nee lii du fi amee loolu munul am parce que askan rek moo am solo cim réew askan rek moo am sañ-sañ moo yor souveraineté ku fi kuñ fi teg nga jaakaar ni am nga police am nga gendarmerie amoo dara loo am rek daf fekk askan wi nangu ko mais fu askan jóg taxaw ñëpp taxaw doon lii duñ ko nangu amul ngu nguur gu ko musa a mën a dëkku amul nguur gu ëpp doole ci àdduna bis bu askanam yëpp jógee waxuma lenn lu ndaw ci askan wi de mais li ëpp ci askan bu jógee ne lii du fi amee loolu mënul am moo tax bi askan wi ànd ak man ci li ma wax gëm li ma leen wax bi ñu jógee gis ngeen fi mujje mooy ñi doon pexe <coughs> ba jàpp yóbbuñu bàyyiwaat nañ ñu andi ñu ba suñu kër loolu mooy wane doole askan ñu jàppoon ni nag foofu la mbir mi di yem que Macky Sall dina delloo xelam ci yàlla bàyyi justice bi muy utiliser ngir di songu ay adversaire politique ndekete moom dafa wuti woon doole pour ñëw ne foofu rek gàcce gi ma amoon ndax moom gàcce la ko jàppee nit bu bew nit bu rëy bu dara amee ole nga xool loo ci mën a tiire ci lu baax yow da jàpp ni gàcce la faw ma fayu mu dellusi ci loola daa di dem li nga xam ne moo ne woon seen seen li ñu laloon ba ci bi te li ko gën a firndeel mooy benn jigéen bu ñuy wax joor jaañ joor jaañ soxna la ci Antoine Diome bi nga xam ne mooy ministre de l'intérieur dafa am lu mu rëccaloon ci jamono jooju defe naa loolu mu rëccaloon yéen ñëpp gis ngeen ko mu rëccël ab message boo xam ne da ko doon yónnee keneen daal di juum yónni ko kenn ku ma jege lan la ci wax mooy dossier bi bu leen ko tëj ndax bu ngeen ko tëjee réew mi day tàkk manifestation dina jóge fu ne fii ak bitim réew te loolu baaxul ci réew mi baaxul ci nguuru Macky Sall la ngeen di def mooy da ngeen koy bàyyi mu toog këram bu ko defee enquêteurs yi woo ko di ko laaj ay question juge bi programmé procès procès ba nag bu ñëwee porose yàq der la ndaw si ñëw naan fii la ma jaar def na ma lii def na ma laa bu ko defee daram yàqu ci Sénégal yépp dootul mun a taxaw laaj baatu sénégalais yi lii moo ne woon seen lal seen pexe